وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دون سقط عند سرسارا لهور insisté rek nga xam ne loolu suñu Cheikh naa sànni ko ci ñun mu daal di siif ñëw ndax suñu Cheikh naa bi ma ko xamee léegi bu dee def trois semaines ci layam sëñ Ablaye di sama mat di sama jëw bi moo ko jox sama numéro mu woo bi ma woo wooyee fekk ma nekk Touba ñaan ma ne ma bëgg nga jaar ca daara ja xew lu def fa ñaan ñu fasante ko ko lay boobu fekk ni man ak sama jarbaat yi toog ñu ànd mais maag seen yaay bokk paak ñu soxna Coro suñu famille ñu nekk soxna Adja ñu dëkk fii daanaka su ma paree liggéey waxtu bu nekk fii laay nekk ci ñoom ba yenn saa yi rek ñoom dafa dem ma door a dem ndax seen yaay mooy sama mag léegi laa leen wax ne fii laa dem si rek ñu ñëw alquran nag day wax ne lan jazaa'u l-ihsaan illa l-ihsaan lu rafet lu rafet rek ko koy fay comme defal nañu teraanga te mosuñu ko gisee. barki démb ma nekk seen TV di def émission mu lakkat ndawal bu bari fekk ñu ca plateau ba def ko ngir seen Tuubaa keroog a gis nag moo am taalibe yoo xam ne dañ la teral te doo leen gis soxla wuñ laa xam soxla ñoo xam sa jub soxla ñoo xam foo dëkk soxla ñoo xam loo xam loo am loolu moom nangu rek la kon noo koy ndokkeel di ko ñaanal bërki dem nee naa ko foo mën a dem ci àddina si rek moo ñaan sëñ Tuubaa defal leen fa dibité di Tuubaa xel kom bu saabu sëñ bi ko yàlla na ko def rakkam yi mu àndal yëpp ak magam yi sëñ alaaji mii daje nañ ay yoon ko la nekk sa masa yi sëñ la ci sëñ Ablaay mii la tàmbalee maa koy nuyu soo gisee ma taf tafee nii kàddu yi moom mii moo war a waxtaan man damay nuyoo rek fedd li kóllëre gi yokk mu waxtaan ndax moom ñoo bokk lépp ba noppi muy sama jëwriñ bari xam-xam lool mën a jàng mën a waxtaan te mën na dundal ci sëriñ bi di ko laabir ku baax ku woyof xam naa li bëri fi moom laabir ak woyof ci yow ndax xam naa coono yi nga xam ne nii ñu ngi koy toogoo waaye nag sëñ Tuubaa jaral na ko ko te taalibe sëñ Tuubaa yi seqal ko ñoom maa ngi nuyu sëñ Cheikh Sène mi suñu mag suñu kilifa bu mën a jàng lii daal sëñ Cheikh naal barki dem maa ngi wax sëñ Ibrahima ci télévision bi am na mbokkum taalibe moo xam ne ñaari fan ñett yu ne dana la yónnee juróom fukki junni wala fanweeri junni caam nga sant mën nga dëkk si région mosuma ko gis kenn xamu ci kàttan moom lu mel soxla mu sax xam nga. loolu suñ tubaab yi ko te loolu am na wéraanam te Ibrahima nit ku baax la day dem ci bërëb ñu ne ko ana sëñ amit mun a jëlal numéro boo ko léegi loolu jotal la ndax sëñ Cheikh da fekk da wax ne du ma fekk lu yàlla yaatal ma di waxat kon sëñ Cheikh maa ñoo ngi lay ndokkal di nuyu sëñ Saliou Seck nii kii sama xarit la nit ku baax la nit ku woyof la nit ku am kóllëre la te it ku mën a jàngale Saliou yaakaar naa ne bari na fi ñoo xam Dakar bu fi yàqu bari na ñu bari këram lañ doon wàcc ba am fi dal mbaa a dem te mosu koo doxe mosu ngi koy nuyu dañoo xuloo woon sax waaye safar gi gi moo ko xam naa ne suñu bëri na moom bu bukkee garaawul daal garaawul garaawul waaw ñu jubóole daal ndax li nga def ku xulóom nit boo ko defee rek ngeen xulóom ngeen kii xam nga damaa toog fële seexu na maa ko gis ah, xam nga koo xulóom boo koo gis boo bëgg laa gis nga toog ñoom mu lay xool di ko xool ñëwoo ko salaamaaleykum ñëwoo ko salaamaaleykum ngay ràmbal ba jege ko mooy la ñu fi nga ne ko ñëw mu génne ñeenti junni bokkal ko fokk ñu ñëw am nga bàyyi ah loolu nag dama ci dama ci wax ne moom seen xarit la man ak mbaax laa roy ci nit ndax xaw ma lu bon man bu ma yoroon si ñoom mën naa koy joxe toog kàttan ba ci Seexul Xadim loolu laa ci moom ndax moom tey li ma invité ci ay li ma ko boole ay nit kenn xamuñu toll sept TV bi mu fi mujjee dem Africa 7 moom moo fi ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen dama doog mu wax jànkat yi bi ma doog a ñëw Golf bi maanaam Ousmane Diop ay moo a daan ñëw dama fi fekk si bi ma musulaa dama indi ay bagage ba ay napp sax li ma koy ñëw bàcc si yow xam ñu bokk ko bëggee mën ma bu ñu noppee ànd surtout ku baax la nit ku bëgg baax nit ku defal nit tiraanga la surtout ba tax li mu tëri gratuit lay doon li ngay def yoru deewu ne lu muy si am na ci ñoo xam ne li ñuy lekk ndawal bëriwul dama bëgg créer député yoo xam ne ba ñuy def weeru dee wu nekk ñu daje ci benn àndal ñu lakkal nit ñi député par exemple tey ñu ne géejawaay moo aye ku dem bi bi bi di sàngam boo lekkee gratuite lay doon mën loolu na nekk nañ ko def parce que am na ci réew naar yi am na droit am na dëkk yoo xam ne même Amérique jàpp naa am na foo ko fa foo xam ne soo xiifee mu droit lekk te doo fay moom mii mu dégg ko wax ko sëñ Ablaye jox sama numéro mu woo ma loolu laa bëgg dama bëgg bis bu dee ba yegg ci loolu ñu xool ñun lan lañ ciy jàppe waaw loolu loolu yàlla na ci sëñ Tuubaa defal ndam wax naa ko nag bi ma ko waxee mu ne ma li ma doon lijjanti ngir loolu sax far yàlla far na def mu sotti donc da nga ko fi indi ñu bokk waxtaan ji léegi nii rek laa koy wax ci télévision bi fekk dañoo ne lan la yàlla fay sëñ bi ma ko ah xanaa mbindaan mi dox ci mbedd mi sax di bari kër gi sax xanaa nit ki koy liggéey waroon na ko mën a war loolu 3000 francs xanaa par fin du mois yàlla mi amul doom te moom lépp mun ta fay sëñ fay na ko li ko fay mooy xol yu nangu tey kenn ku ne ci ñun sa bopp la gënal sa morom sa morom la gënal sa bopp tey lii ñu def nii ñenn ñaa toog suuf jële si ngi joxe seen àll jële si ngi jooy ku ne la man yaa ngi koy def sëñ Tuubaa ko man sëñ Tuubaa nag daa ñaanoon yàlla ne ko nag ma boole ñii sant te bul ma boole ñii weddi moo tax mu ne du jublu mukk kuy weddi kuy sant rek moo ngi jublu waxoon na yàlla itam ne ko li ngay fay sa yonent fay leen ci li ma fay man yow li ngay fay sa yonent li ma fay fay leen kon xanaa fay na ko wal tajzi amril anbiya wa rusula xayran yu diimu sukaran wa xasala azhaba rabbi ni siwaayal xaasirin waxaade li kaw yu surura shakirin lu mu am nag ci tàgg yonent bi la ko amee nee ci la ma fegale samay noonu ci la ma saafaraale samay jàngoro matun nabiyil kaafaani kulla adun min ba'da ma shafaani li ci des rek mooy ñun ci ñun la des mooy ñu góorgóorlu suñ tubaab nag lu wax waatu moom ku mbokk lislaam taxu koo wax ku dëkkul lislaam jàkkaarloo moom moo ko tax di wax ñun nag am nañ liggéey bu doy xam ne moom lañ war a liggéey bi war a liggéey mooy sulwaat jàmbaar gi mu jàmbaar damay wax ne sax war nañoo ñaan Gabon mu ne Gabon siyaare parce que lu mën moom am na courage dem bëgg dem lañ fi téye ak politicien ne ko dañ laa porté plainte dañ laa convoqué jour tel laataa muy ji réew mi tàkk na foo war gis réew mi tàkk sëñ Tuubaa bañ koy convoqué pot sax yënguwul daa am courage wuy ji comme tàggoo jeewal la tàggoo yow Mbàkke Baay la tàggoo yow dem kon kooku xanaa war nañ ko mën a sànni am na Mbàkke Caam lu mu daan def daw kooku sax sori na équipe nationale Sénégal moom su fee indi coupe d'Afrique fu mu demee daa laaj fu mu demee rek defet la fa jëlee pourtant bu ñu ñëw ak seen defet sax dañ naan na ñoom jëli ay rapport leen ay xale lañ di góorgóorlu lu tax ñu def loolu ñu def parce que dañoo yóbbu woon mi nga xam ko mën a sàmmee mu ko nag ay la yéwén jërëjëf parce que bi tubaab bi wootee wuy ji nga man dem na ak mu mën rek moom dem na borom bi toog la néeg ma dem te dellu si man ko waxoon am na dem na dellu na te kenn fekk ko ci nag nañ jël islam jël tariix teg ndale jël seen tubaab en tant que africain boo xam ne noonu boo ko moom réew tubaab bi yor dooleem buur yi yor seen doole mu modaaram teg ñoom jàkkaarloog ñoom ba taxawal islam mbooloo ñuru ko woon addiyee ñuru ko woon daaw laal xaalis amuloon ay daayira benn daayira bu suñ tubaab bàyyi keréwu benn daayira daayira yëpp jamono si mburum suwaal sëñ Cheikh Mbacke ba fa def kooku xanaa kon soxla doon nit fex na ba affronté ak ñooñu ba gañe lim gañe wax naa ne ay procureur convoqué wuñ ko ay juge convoqué ko gouverneur général moo ko convoqué bi mu wuy ji na bañ ko tuumaalee dem naa ànd ak ñoom dem waxul kenn ni kaay leen dimbali dafa ànd ak ñoom rek dem fu ñu ko jëmee baax koo xam ne mosoo ñëw réewum taax ñu embarqué la 24 heures def ci waaxu Moussa Siri bi laata bato bi départ rek loolu rek triste la def 24 heures ñu bàyyi la ci benn bato ngir xaar heure bi jot pour nga mën a embarqué dem joxuñ ko lekk joxuñ ko naan juróomi ati laa naan yi nga xam ne nii moom donc ci benn baraak ak taatu màngo su demee fee di bind di ñëw te boobu ñu ngi ñaan yàlla naan ko defal leen teraanga defal leen ba sëñ Tuubaa di ñaanal nit boobu moom mi ngi ci xat-xat ba sëñ Tuubaa di ñaanal nit ñi moom mi ngi boobu tawul boppam nit ñi la tax bu yàlla dimbali leen sëñ Mor loo daga ne leen bu ko fekkee ci àllu maayum ba bi àllu gamoo bi leen bi mu ñëwee damaa jàppoon ne ak ak moo toog ndax tellement ñi ko ñi ko same ñi ko yooyu same ak matat yi waaye bi mu jugee taxaw laa xam ne nii vingt quatre heures sur vingt quatre muy taw muy taw këyitam yi di naaw monsieur di ko for bu foree dugal ci biir baraag bi ñu toog ci taatu ga mango gi toog ci bind léegi waa ji damaa laaj ne ma sëñ tubaab lu mu def mu def ma tubaab bi yóbbul woon sëñ bi bi sëñ bi la téye waaye téewul arme sëñ bi xamuloon arme sëñ bi arme sëñ bi moo nekkoon xalimaam tubaab bi ñu doon xarima gi rek lay téye waaye daa juum moom ba mu téye sëñ bi xarima gi rek la sëñ bi kontaan xam ne li bëgg dina ko am moo tax mu ni inni uxaatimuhu fil bahri muxtariban walam yazal jalla qahaaran wa jabbaara bi may xaqanteel moom ci géej boo fekk na ma nekk ko tumaraan bi waaye yàlla moom mosut a nekk di di di nekk notaakoon ndax yàllaa ko tegoon loolu waaye am na boo xam ne sax dina ko noonu moo ma dàqal ci lépp mooy sëñ tubaab mi ñu jàppoon yóbbu ko ko Moussa Sine moo ko ne wàccal woowu si xarit ku la yegg nag koo yegg ku la yegg ko yónnee lu de. fi ne bi ci gën a yegg boo ko yónnee lànk lay def. tubaab bi yeboon bu ko yónnee seen seen bu ko yónnee tubaab bi la dem te ku ñuy seexant seexante Cheikh Anta ànd ak bi wax ak moom lay wax moom wàcc beneen bi topp mooy li tubaab bi doon tere yëpp tereetu te ba tey la sëñ bi newoon la mu ko doon tere ma ca tubaab bi tereetul la bu doon tere bari gi dem boo ñaay màggal gi te léegi sëñ tubaab sax daa sori nekkatu fi ak sëtama fi sëñ bi sonal leen witt ci réewaanam ji loolu tey ñu wax ñu ko. parce que jumaa ji du tëj. jërëjëf Diop ak wér. demul fenn di maslaa ñëpp bëree ba léppam sotti. dëgg la sëñ Mountakha bi daa maslaa ba lépp sotti. mooy di merewuñ ko tijaan merewuñ ko politiciens yi merewuñ ko. sëñ Babacar Sy Mansour na ko yàlla wéral barki démb bi muy dafa wax ni li ma war a wax sëñ Mountakha su ma ko waxee temps jeex. daañu si ñun taxaay leader la. ay dëgg la de. leader la tey président de la République doon inauguré ji Touba ak hôpital. waaw pourtant ay jamono suñu Touba nga ngi woon Ndiarène Touba di ko xeeñ te mënu faa dem. tey président de la République bi fi jógee taal ma dem ci sëñ Mountakha suñu mbaxanaam dindi maskam. nuyu ko ni ko Touba jumaa hôpital euh, euh, Bango moo ëpp moo ëpp ci sous région bii ñu nekk ci Afrique moo ci ëpp doole moo ci ëpp matériel moo ci ëpp accompagnement tudd nañ ko hôpital Cheikh Ahmadou Bamba. sëñ Ablaye waxtaan kon naa la bàyyi nga yeggale kàddu bi teg naa la moom ndax yow. ñun ñëpp lañ jógee maa ngi doon seen Mor Gueye ñu dooree si ku dem Touba ku jógee Dakar wala ku jógee ci beneen réew dem Touba loo war a mel ak boo eggee noonu loo lan daal ngay lan def loo xam ne lu la jëriñ la bëgg waaw xam nga sëñ Touba mu xool bu mu ne leneen lu tax da ngay jël ñaar sëñ Touba ngay jël mbaa nga jël daf ne am na ci ñoo xam ne danaa leen jël am na ci ñoo xam ne danaa leen yóbbu yël bu mooy lan mooy koo xam da ngaa jàpp ci dara doom bu yërëm ngay faxas yàlla na yàlla musal ci ñuy yërëm lan la sëñ bi di yëlboo mooy li mu teg ni ñu daal di ko sànni mënoo bëgg sëñ Tuubaa bëgg Messi bëgg Wally Seck bëgg Youssou Ndour bëgg keneen bëgg keneen bëgg keneen def ko sa biir xol ba pare ne da ngay dugg sëñ am na ci ñooñu yooyu sax melokaan nañ ci nga nekk Touba sol pain tubay ji nga wàcce ko ba ci suuf di jay jay fu ne nga dugg fa ku gis image boobu jàpp ne yow yow yoonu murid loolu yoonu murid yoonu murid seen Touba ñu ko war ñu sell ay nit ñu baax ñu yiw jotaay boo fekk Cheikh Ibra boof Thierno boof sëñ Mamadou boof sëñ Gaawam boof boo ñëwee war nga xam ne fii di jotaay ko ne ñun naan xoolaat suñu bopp te war maa sëñ Touba ci dëkkam bi su dee jigéen ñam na joxam danañ dem ba ñëw dèjà 15 jours avant màggal ñu dem marché monté ay we xef seen i greffage leeral seen bopp kooku moom demul ngir liggéey wutali boppam bu ñu dem Touba serviette bu bees la ñuy génn chaque minute ñu sant naan Touba daa tàng te bu a sant mën a sax jaaxle parce que fii da ngay fay loo fi yàq yàqal fee fee fa yow dara am na loolu soo demee Touba ba nga jëpp ci dëkk ba. war ngaa wormaal dëkk ba ndax sëñ Tuubaa dafa mos di wax ni nit rek di kafal moom naan ko xëy li Tuubaa de maa ngi lii di ko gis kooku naan ko loolu jox naa ko gudd ko fekk mu fekkee ko ko ko fekkee wu am na koo xam ne ci mag ñi damaa bañ a tudd aw turam ndax micro la sëñ Tuubaa moo bind lettre jox na bu ko gis ba tege boo demee na nga dem ba ci digg jumaa ji nga suunal ma ko mooy fii tamit nekk ci bi bi ba génn ba génn gaaw rek xel mi seytaan bi boobu moo bi lettre bi ko ba mu ñëwee daal di koy suul def si ñu ne ko mbaa bu teguwul ci mu ne ko déedéet mbaa ko mu ah kay mbind mi moom a leeral ne ba tege na ci daal ne ko waaye yow boo ko fekk kooku bi bii dem ndekete boobu sëñ bi bii dem ñu ngi fekk ñu téye ko njaareem ci tuuma ñu amoon ñu téye ko teg ko ci loxol la moo tax dégg naa daan toog ci kaso ba mu jékki-jékki daan na cëy bi bëgg a xew ndax moom rek xamoon dat bi daan toog cëy bi bëgg a xew ñu ne kuréel gu gas moom mën a bis bu ñu koy suba gis asamaan su xonq rek njëriñ yi tàmbalee naaw mu ne li bëgg a xew tey lay xew boobu xam na dara loolu xam nga lan ngay digle mooy sëñ bi bu la digalee bul laaj bu yiw bu sell bul xool kenn la muy def xoolal yow li ngay def digg sëriñ bi raxas sa ndax ba set te duy da yaakaar ne président de la république sax ngoor duñ ko yëngi renseignement yi xew ci dëkk bi mu xam ku ne ci li nga xëy la nga yem sëñ Tuubaa li mu yaakaar dëkkam ne dana ko bàyyee ku ne nga di ko defee nu mu la neex doo ko gis doo ko mu ne nga màggal te naan dama benn benn benn benn man ma de sëñ mu ne ma ñaan ko li may ñaan di ko am man li ngay ñaan sëñ ba nga koy ñaan xoolaatal sa bopp yow lan ngay ñaan waaw ah sëñ bala mu laa defal dara nga correct waaw ah, yow da xool sa digg ak sëñ sa bopp ngay xool bu kenn nag sa bopp ku ne xoolal sa bopp li nga mel ak defaru dafa jot lu dul baax baax a bëgg te sëñ Tuba ay jaahil ay musrikuun defuñu ay nit ñu sikk nit ñu baax def tànnal na lu baax lu ne nan ko suturaal ci suñu bopp nan lañ ko suturaal ci bopp mooy leen fexe ba ku ñu xool xam ne ay murit lañ mm-hmm. ndax ñun dañoo fier ci doon ay murit ndax li mu nekk neex nañu te jig nañu te ki mu àndal naxunu te pour war la ki mu àndal naxunu mooy ku la jumul na bi ngay ne ci li set bu ñu jox ak xaalis bu ñu may eh, sëñ Abdoulaye mi chaque jour muy tëdd guddi nelaw ñu koy yee naan ko cinq cent mille ci guddi ñu te boobu mi ngi nelaw waaw bër ci démb bi waa kër sëñ tubaab gii ci jàmm gën di defar seen kër gi tam am jafe-jafe dañ maa woo mën a leen ko def ñu wax am na loolu loolu dama ko def jël ma sax téléphone sax dañoo dem kër mu ne leen dinaa ko woo léegi dina ko def même moo lay laaj dinaa ko def yow boo ma ko waxee ma def. wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmani rahim hamdi wa sukri liman kulli biisara luhuri dan dunu suqtil inda sarsara luhuri